addiinu nasiha laabiire gii mi ngi bàyyi ko ci sëriñ tuuba sëriñ tuuba nee na képp ku réer réere ay farataam li ko war mooy bum nekk di yittewoo xam-xam yu nëbb yi mbaa muy soxlawoo maqaama yu kawe ya na yittewoo xam lim war a fas ci digganteem ak boroomam ak nim war a jaamoo boroomam loolu mooy farata ci moom bu ko xamee ba noppi nag mën naa yittewoo xam-xam yu nëbb ak maqaama yu kawe ya inna bil jahli muttasifun bil aqdi wal min qabli al xafiyaati fardun lam yakun bil jahli muttasifan fal bil maqaamaati saniyaati